xam ne amuñu benn patriotisme bëgguñu sax seen réew waxuma laa toog assemblée nationale dañuy xeexalaat donc léegi ñooñu da ngay gis chaque jour député yi bu ñu demee biir assemblée nationale dañuy wax ni askan wi falu leen dañuy wax ni parti bi leen fa yóbbu moo leen fal donc ñooñu ay député parti bi leen fa yóbbu la donc léegi kon Sénégal ba suñu jon yàlla tey amagul député du peuple député du peuple ay benn ñaar ñett la benn ñaar ñett assemblée nationale buy plus de cent soixante députés boo xoolee ay deux députés la am yu yoo xam ne askan wi lañ fa toogal nga gis la euh, passage Sonko biir assemblée nationale ça a été marquant parce que asa peuple bi la fa toogal am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam benn ñaar ñett la Guy Marius Sagna passage am assemblée nationale ñëpp reconnaître nañ ne peuple bi rek a ko ñor gis nga ñooñu nag benn la ñu doon ci biir cin benn ñebbe la ñu doon ci biir cin lu ci des yëpp ay député parti politique lañ ay député parti politique lañ ay ay parti bi mo leen fa tek bu parti bi bëggé dañ naan waaw bu parti bi bëggul ñu ne dédit sen yon newul ci arrangé na dëkk bi wala arrangé na askan wala arrangé wu leen day doon care wuñ lool donc nonu la assemblée nationale di faral di doxé sonu nañ ci na xeex nañ ko wax nañ ci euh, euh, euh, même élection yi passé liggéey nañ ci liggéey yu mucc ayib malheureusement gis ngeen ak Macky Sall dissoudre na liste ba bu ñoom Sonko def ay jëm def et cetera et cetera ba ba génn majorité malgré que soriwul mais fexe na ba am majorité donc noonu la ñuy faral di toroxalee peuple bi noonu la ñuy faralee di sonnalee peuple bi di leen proposer du n'importe quoi donc loolu lu ñu war a xeex la lu ñu war a xeex la ba nga xam ne léegi assemblée bii ku fay dugg doo fa duggal parti politique mais da ngay dugg ak ñi nga même bu dee parti politique parti politique boo xam ne newuñ di jël ay militant élection yi di ñëw di lañ ci xeex xeex bu mucc ay ba nga xam ni ngeen jël ay nit yu leen yà yàgg teewal même bu ñu bokkoon ci parti politique bu leen parti politique yi investirul ñun peuple bi dinañ taxaw pour ngeen xeexal pour ngeen jël ñooñu parce que ñooñu dañu leen mus taxawal dañoo mus a taxaw fii parce que parti politique yi souvent dañuy jël seen i nit ñoom dañuy choisir seen i nit lu peuple intéressé peuple déedéet dañuy choisir seen i nit yoo des militants façon bu mi donc assemblée nationale pour une première fois dans l'histoire une assemblée nationale populaire pour population bi ngeen jël ñi nga politiques, parti politique wala identifier parti politique yaakaar assemblée nationale c'est pas compliqué ku ci mel ni benn Cheikh Omar Diagne ku ci mel ni benn euh, Guy Marius Sagna ku ci ku ci mel ni benn euh, Karim Xrum Xax ku ci mel ni benn Thiat wala benn et cetera et ku ci mel ni benn nit dof ku ci mel ni benn euh, Morgan ku ci mel ni benn keneen ak keneen ñi nga xam ne bëgg na ñi nga xam ne ñii bokk ñu ci benn parti te musuñoo trahir peuple te dañoo mus a ànd ak peuple di ñii boo leen comme boo leen joxul dara lañ leen di xeexal waxuma laa nag bés boo leen leen joxee place pour ñu xeexal leen bu boobaa dinañ gar seen bakkan di dinañ fa teg seen bakkan mais te ànd ñoo parti bu mun a doon boo fi buggee votelu loolu dëgg dinañ taxaw ne la dégg du dégg du yoon te duñ ko nangu donc il faut que ñu fexe ba nga xam ni dina mën a am balance boobu noonu ngeen rayante ba nga xam ni peuple bi da ngeen di jël ñoo xam ni dañoo rayante ngir yéen tey yéen rek lañ gëm gëmuñu leneen jaamuwuñu benn parti politique jëluñu seen bakkan bi jox ko benn parti politique bu téye leen di leen manipuler di leen yóbbu ci lu ko neex ak nag lii moom a neex wala lee moom a neex lu neex askan wi rek moo leen ñor maintenant loolu benn problème la boo xam ni incha allah avec le temps fii muy am euh, élection législative dinañ ci gën a waxtaan ba nga xam ni dañuy am benn ëpp euh, euh, pouvoir législatif boo xam ni pouvoir législatif bu am doole boo xam ni euh, incha allah peuple bi dinañ ci gis seen bopp mais euh, ñi teewal député du peuple duñ doon ay benn ñaar ñett mais dañuy doon ay nit yu taxaw pour peuple bi voilà bu weesoo loolu euh, li am tey moo mës a am Sénégal bi fi Abdou Diouf nekkee moo amoon majorité assemblée nationale ay majorité écrasante nag ay majorité yoo xam ne maanaam Nous sont parti au pouvoir bi dañuy négocier trois quarts bi ñom ñokay mom ci député manam député quatre quarts la quatre quatre quatre quatre Ils ñi trois quarts yi ñom négocié nous ñu négocier Abdou Diouf euh, assemblée nationale Abdoulaye bu nationale parce que kenn mënul diriger ci réew parce que réew ay loi moo koy taxawal ay loi moo la ñuy rédiger moom moo yorob réew réew ci ay loi lay dox ak ay règlement loolu nag assemblée nationale lañ koy voté donc nit munul jiite maanaam xam nga dañoo jël Sonko ak Jomaay Jomaay lañ jël def ko chauffeur ñu jël Sonko def ko apprent mais oto bi dafa am lu koy dawal ay essence dafa am lu koy dawal moteur bu baax dafa am lu koy dawal dafa am oto maanaam oto bi ñoom moomuñu léegi lii dawal oto bi ak kañ la war a daw ak horaire bi ak lépp mi ngi dépendre ci assemblée nationale donc ñoom malgré teg ngeen chauffeur teg ngeen apprenti clients yi taxaw nañ mais du mun a daw tant que assemblée joxul jour ne tel jour la war a daw tel jour horaire la fii la war a taxaw fii nangam nangam donc ñooñu tant que joxuñu joxoo leen li nga xam ni ñoom ñooy choisir kañ la oto bi di daw kañ la oto bi di taxaw fan la war a dawee fan la war a jëlee et cetera et kon joxoo leen dara donc bu fekkee nit ñëw na doon nga jox ko président ñi kii doon premier ministre boo leen joxul assemblée nationale bi joxoo leen dara loolu maanaam mirage la rek dañuy taxaw xaw lu ñu amuñu lu ñu réglé parce que bu loi bu ñu dugal ñu rejeté leen ko projet bu ñu dugal ñu sànnil leen ko fële et cetera et cetera donc duñ ñu musa dem donc. président bu il faut mu fexé ba mu jël loxom teg ko ci assemblée nationale pour mëna doxal politique am ak bëgg-bëggam ak projet lool assemblée nationale lañ koy voter donc Abdou Diouf bi nga xamné Ablaye Wade gagné nako en 2000 dafa dissoudre assemblée nationale bu ko dissoudre ñu demande élection mu am majorité garantie pour mëna doxal nak projet ak politique Ni nii la Abdoulaye Wade def deux mandats bu muy dem ay député ñoo newoon fofu majorité Macky Sall bu mu comme Abdou Mbaye la dugal ñom Abdou Mbaye toog nañ plus de huit mois yo xamni defuñu déclaration de politique générale Lutax parce que dañ ne ñom dañuy xaar li fi am nii na fi ci Abdou Mbaye donc Macky Sall bu mu ñëwee def ne day xaar ba daane assemblée nationale bi ñu dem élection législative mu gagné ko am majorité garantie assemblée nationale c'est bu boobaa premier ministre muy Abdou mbay mii nga xam ni ci euh, euh, hôpital Le Dantec terrain boobu noonu ci ginnaaw yëpp quatre-vingt pour cent yi moom moo ko moom mu sàcc suuf si dossier yaa ngi fi Abdou Mbaye mii ngeen gisoon sàcc na suuf su bëri ci hôpital Le Dantec bu ñu daggoon suuf soosu boo demee ci këyitam Abdou mbay moom moom na fa ay hectares hectares hectares ñu ngi

pour pour ñu mun a jël seen temps dissoudre assemblée nationale ci lañ dissoudre assemblée nationale defaat ay élection moom Abdou nous ñoom ñu ñu am majorité garantie Abdou Mbaye doog présenté bu muy présenté déclaration de politique générale ci kanamu député yoo xam une majorité donc bi fa député mag Ablaye Wade yi déclaration de patrimoine de déclaration euh, de politique générale dafa xaar ba ñu def ay élection ñoom ab une élection, pour une majorité mu faut faire dem déclaration de politique générale donc il faut que tàmbale ci Ablaye Wade parce que euh, Abdou Diouf dañ ko dit euh, da ko bàyyee woon da ko bàyyee donc après le si des yëpp moom moo donc Ablaye Wade dafa à assemblée nationale Tambalé a ko une élection am majorité premier ministre a fait une déclaration de politique générale Il mu def 12 ans nice géré num ko nexé yakuluko donc ki ñew ki nga xamni mom moy euh, Macky Sall Macky Sall yi bu mu ñewé dafa daané Assemblée nationale bu Abdoulaye Wade jël tam mom def élection placer ay nitam nitam yi gagné mu duggal premier ministre mu dem def déclaration de politique générale donc ni la mësa dem légui lan mo tax sonko mom moy kumba amul nday bi nga xamni président musu fi taxaw defuko ko moom mu ñëw war a mën a dem tàllal euh, baatam ay député Macky Sall ñu rendi ko loolu amul fenn fenn fenn amul fenn ba ci France bi ngeen di gis nii dañoo daane seen assemblée nationale ñu ngi noonu dem ci ay élection donc loolu peuple bi sax moo ko dul bu ko Sonko doon pare sax peuple bi du ko ko nangul parce que kenn mësu ko fi def te du tey lañ koy nangu ñun nous avons une carte sanni peuple est souverain sanni suñuy carte une suñuy ñu dajalul amul ñuy suñu premier ministre bi nga gouvernement di dem assemblée nationale di ñi leen fay respect di tek ay motion de censure etc. Nous ñun peuple duñ ko nangu. peuple est souverain duñu mussa pas à l'Assemblée nationale ñun nous ni ñun peuple bi ñoo assemblée nationale. ñu nekk assemblée nationale yéen yàgg ngeen leen xeex ay ñoom Koura Macky ñoo fa nekk et cetera ay ñoom yi Sow ay ñoom euh, ñi doon xeex ñu àndoon góor jigéen yi et ñoo fa nekk ñooñu ñun bëggu dara bëgguñu dara ci ñoom musuñoo voté lu arrangé peuple bi bu ñuy rey peuple bi ñoom ñoo ne force reste à la loi loi yu ñu voté rek la yëpp moom mooy écraser leen peuple bi rajaxe leen peuple bi bi Macky Sall rayé la maximum war a dem bu ñu dem dugali euh, li nga xam ni moom mooy voté loi amnistie dañoo àndoon encore bi Macky Sall toogee ba mu neex ko lekk maafem bu saf sàpp dafa xëy rek ne damay disu euh, damay dindi premier ministre ci la demee jox ko député mi député yi voté ñu dindi premier ministre donc bu ñu dindi premier ministre nag dañoo dindi lépp kon réew mi premier Macky Sall dafa dindi premier ministre ne premier ministre amatul moom mooy buum moy bumi, moy Yalla, moy yenentu bu Sénégal donc mu gouverner na fi sans premier ministre mom Macky Sall donc assemblée nationale dañoo voté woon loi bo xamni ni dafa dindi premier ministre premier ministre existe ci kan ci Sen papa Sen Yalla, nga xam ni moom mooy Macky Sall Lumu bëgg rek ñu ko donc lolu mo nek ci règlement intérieur dañ ko modifié ba suñu jot na yàlla tey changé waatuñ donc ñoom dañoo jàpp ni premier ministre sax amul Macky Sall dafa toogaat toogaat toogaat lekk lu mu ko neex foo ba mu neex ko mu toogaat rek ne a un clin d'œil comme ni ko yàlla di defee tak eh, ay soxla premier ministre ci la woo même jour yéen a ngi koy ko Amadou Ba Amadou Ba ñëw eh, costume trois quarts yi ngantam maami eh, mbàjj mel ni ku sëlmuwul takk ndombo yi ci ci ndigale ba ci bopp bi donc si vous vous souvenez très bien donc sommes premier ministre donc Wadi Moy Yew, ne dindil li donc nous sommes ko donc par rapport à Ben que nous avons dafa am ay envie naan kafe gi saful xorom wala saful suukar mu saaga ne dindi lan ma lii toogaat lekk benn affaire bu bëri kaani mu ne mbur saaga ki ndey te toogaat lekk lu neex mu ne tegaatal lañ ma fa donc noonu la Macky Sall doon doxee léegi dañoo dem ba député bi dañoo réer ci waa parce que xamuñu waa ji mbëfër la guuxi lex réew beew xam yoonam nekku ci saa yu yeewoo rek de envie bu mu am lay lay doxale ñu dem ba assemblée nationale nag mënatuñ topp waay yi ci ci nu mu bëgg parce que danaan teggil li ñu teggi suba mën leen tegaat loo ko fa yóbbul ma ko fee yow kii xam nga bëri ay bëgg-bëgg ak ay bëri ay santaane donc assemblée nationale boobu bu ko Macky Sall dindee bu mu dindee premier ministre biir assemblée nationale ba léegi defaatu ko fa donc bu mu yeewaatee tegaat fa premier ministre bi ci sañ-sañam la mais ba léegi loi yi règlement yi dañ ko changé woon donc fu nekk nii assemblée nationale premier ministre amul premier ministre même kii bi nga xam ne ñëwaat na Amadou Ba bu mu ko indee bu mu ñëwaatee def na fa déclaration politique générale mais changé wuñu dara ba léegi Amadou Ba sax amul légitimité bu mu taxawee woon di wax parce que premier ministre existé wul woon Macky Sall dindi woon na ko ba bu mu ko indiwaatee changé wuñ dara dara dara ci feuille yi ñu continuer <laughs> yàlla nag buy defar day mel ni yàq boobu yëpp buur Macky Sall mi ngi jàpp ne yàlla la di di buuma ko bummi boobu xamul ni mi ngi defaral Sonko léegi Sonko bu mu ñëwee nag dafa fekk lépp ne yàmbalang Sonko yàlla moo ko defaral yàlla moo ko defaral moo tax gis nga Sonko boo boo xamee dëkk dëgg dëgg pouvoir yàlla da ngay maanu ci ay mbiram xam ni kii yàlla moom moo ko yàlla dafa am ay nitam nag yàlla loolu yàlla mooy choisir ku ko neex peuple juif bii la jël ne peuple juif bi mooy peuple am te gis ngeen ci lu ñu ne mais ci ba alxuraan ba mu demee def ne peuple juif bi mooy peuple am donc mom mo xol da ngay gis ko xamni gëmu ko respecté wu ko joxu ko cër di def lu ko neex gëmu ko sax yalla diko badil diko jox alal diko jox wër diko jox xam xam diko jox donc yalla mom mom mom mom mom moy kamilan quoi mom moy lu mat seuk seuk seuk bo xamni mom lu muy def tag du ci tag kenn du ci la kenn noonu la yàlla choisir ci biir Sénégal moom Sonko jël ko rek nii xool ko du ci rafetaay du ci dara amul lu mu daqee nit yi rek jël rek choisiral ko boppam xëy na lu mu doon dund la ci ay injustice wala et cetera mais yàlla naa xëy rek faralal ko faral ko quoi faral ko am lu mu rof ci moom loo xam ni fu mu taxaw ñëpp bàbbee ko waaw moom mooy rahman moom mooy rahim fu mu taxaw rek ñëpp bàbbee loolu yàlla moom moo ko def ci moom Macky Sall malgré mi ngi buuma ko buum mi di changé di dindi mais mi ngi defaral waa ji mu baliser ko terrain sans mu yëg ko léegi Sonko bu mu ñëwee ñoom ñu falu mu toog mais jàppale ne assemblée nationale règlement intérieur bi dañ ko changé woon ci Macky Sall bu mu dindee premier ministre donc assemblée nationale xamul premier ministre amul fu ñu bind ne premier ministre am na fa de dañ koo dindi woon ca jamono yi. bu mu njëkkee Macky Sall bu mu dindee affaire ministre ci lañ changé modifier règlement intérieur donc assemblée nationale nan lay réclamer Sonko tey moom xam xàmmeewul Sonko xamuñu Sonko ñoom xamuñu Sonko ñoom jàpp ñu ne sax Sonko existe na ñoom amuñu lu ñuy wax ci ci ci lu mel parce que affaire bi daf leen a ëpp doole donc dañoo modifié woon li nga xam ne moom mooy réglement intérieur yi donc Sonko amul benn droit taxaw fa bu fa taxawee sax. mom hors la loi la Sonko bu demee assemblée nationale taxaw fa hors la loi la parce que loi mayewul pour Sonko dem fa naan day def déclaration de politique générale. parce que ña fa nekk ñoom reconnaître uñ ko mom reconnaître uñ ko parce que euh, ñi fa nek di dox ci ben règlement intérieur bo xam règlement intérieur ba amul premier ministre nekul ci nekul ci feuille dañ ko barré won donc man duma dem di taxaw fo xam ne reconnaître uñ ma fa non. du ma dem taxaw fu ñu ma reconnaître donc comme moom reconnaître ñu ko fa amul droit sax dem taxaw waruñu leen sax lijjanti moom peuple bee ko fal peuple bee ko fa teg na lijjanti li muy lijjanti premier président bi nga xam peuple ko fal moo ko fa teg moom na lijjanti président bi en attendant peuple bi réglé waat lële ba mu mat sëkk ñu génn ñooñu dégagé leen ñu changé nga xam ne ñu bu boobaa dina mën a dem def déclaration de politique générale devant benn assistance boo xam muy peuple bu ñoo leen fa teg mais du ay nitu Macky Sall léegi nag ñoom lan la ñuy bëgg saboter loolu moo tax ñuy wax chaque jour euh, gouvernement Sonko Diomaye pour ñu accélérer mbir yi parce que euh, alerte yi ñuy def xam nañ ko quoi gars yi saboter liggéey bi la ñuy jóg te te te mënoo jiite ci ci benn pouvoir boo xam ni dafa biir buy daw la dafa jax jaxasoo mënul nekk changé ay ministre ministre yi nek bo duggé ci bureau ba wa APR ya fa fess dal administration bi APR lay xagn fi partout lolou nit mënu ko jité mënu ko diriger li rek moy Moussa am nak tant que ñom raxasu di len bañu sax wécc li mo fi Moussa am li do len ci jéxal dé dina ñëwaat dé dina ñëwaat dé parce que ñom ño raxasul ño baléwul complètement kër gi kër gi boko baléwul ba mu set ak lo fu mëna def ak plat bo mëna togg boko fa tégué nit yi dañ dul am sax fuñu togg parce que gis ngeen gaa yi nu ñu yàqee foofu donc balaa dara dangay ngay bale ba mu set wecc tuur mbalit ma fobeere ba mu set bu boobaa nag même bu dee amuñu lu ñu lekk sax gars yi dinañ toog jéem a xool fu toog sax ci jàmm mais lii nit mënu ko diriger parce que dara dara dara exe exécutif bi ñu ngi fa fees dell ñoom ñoo nekk ci administration bi ñooy nekk ci post yi ay DG lañ ba léegi ay euh, DAF lañ ba léegi ay secretaire général lañ ba léegi. ay directeur technique lañ ba léegi donc ñu ngi fees dàll ñoo fi nekk donc ñooñu mun jaxasoog ñu Sonko ak Jomaay mais nii rek la ñuy nekk kawoo la ñuy nekk ba pare ay noonu la ñu nekk interne kawoo bi day yomb day yomb donc dina metti ci sénégalais jamono ji tant que ñooñu raxasuñ ba mu set wecc bale ba mu set wecc di nii la ñuy dëkkee nii la ñuy dëkkee gis ngeen ko barkaat démb diggante un mois coow li yëpp day wane ni Nous, ñi ngi ci système bu président démé Paris gis ngeen quoi gi fa am gi fa am parce que nous sommes nekk ci chancellerie ñom ci ambassade ak consul ñu ñëwati fi Sénégal assemblée nationale ñoo fa fess del ñëwati encore chaque jour nga gis ñu fal ko xamni la kon donc ba euh, euh, fa fa dara wu fa donc loolu moo tax nii lañ nar a continuer ni nekk ci marathon boo xam ne duñ fi jóge tànk ñoom raxasuñu ba mu set wecc jël ñoom ñëpp sànni ca xaj defar ñoom ñoo dem sax bay démissionné parce que xam nga day wane ni yéen yéen comme yéen yéenay yeexantu xaaral sax ñu démissionné yéen yéen leen di gis ñu ngi démissionné donc léegi comme ñoom ñu ngi assemblée national foofu lañ nekk gum Là, dafa am lu motion de censure motion de censure moi c'est le moyen principal pour que assemblée nationale de disposer pour désapprouver politique gouvernement. moi et bu ma koy bëgg que wax ci wolof bu gàtt bu Sonko déclaration de politique générale nous ñoom dañoo ñu ne jox ngeen leen réew mi léegi